yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñaar fukkeelu njàngale mi ak juróom-ñeent yàlla yónni na ay yonentam nanu bamtu nettali yi weesu benn lan la yàlla wax aadama ak awa ne dina xew suñu lekkee doomu garab gi tax xam lu baax ak lu bon suñu ko lekkee dinañu dee ñaar naka lañuy xamee ne nit ñëpp bakkaarkat lañu ndax Adama bakkaarkat la woon kon nit ñépp bakkaarkat lañu ñett lu tax nit ñi amuñu kóllëre ak yàlla ndaxte yàlla waxoon na ne bu nit ñi bàkkaaree seen colère ak moom dina yàqu bi aadama lekkee doomu garab ga la fecci kolereem ak yàlla ba tax kenn amul kolere ak yàlla ñeent naka lañuy attee bàkkaar atte bakkaar mooy teqali ko ak yàlla ba faw te dem safara juróom lan la yàlla joxe mu wuutu isaaxa bi ko ibrahima doon bëgg a saraxe am kuy juróom benn lan la waa israyil def ngir seen taaw mucc ci malaaka dee gi dañu rey xar wis deret ji ci seen boori buntu kër ak ci kaw juróom ñaar lan la waa Israyil ak sëriñ yi daan saraxe suñu bàkkaare am mala mu amul sikk juróom-ñett bi jaan yi matte nit ñi ci jamonoy Musaa lan lañ waroon a def ngir mucc xanaa xool jaanu xànjar bi ñu lonkoon ci bant bi esayi artu nit ñi ñu tuub mbind mu sell mi nee na ci esayi saar ñaar fukk ak juróom-ñeent aaya fukk ak ñett yàlla ne xeet wi sunu may wut ci seen làmmiñ ak seeni tuñ lañu may màggale waaye seen xol sore na ma te ragal gi am ci man ay aadala dong Esayi wax na lii ci mbirum musalkat bi mbind mu sell mi nee na ci Esayi saar juróom-ñaar aaya fukk ak ñett ak aaya fukk ak ñeent Esayi ne ko yéen askanu Daawuda déglu leen ma nag yéen ngi sonal nit ba bëgg jot jikkoom ndax loolu doyu ba ci boole sonal yàlla ba bëgg jot jikkoom kon aji sax moom ci boppam dina leen jox firnde ji jànq bi dina ëmb mucc doom ju góor tuddee ko Emmanuel maanaam yàlla gane si nanu bu leen fàtte ràññee melukaani yàlla yi ci nettali bi yàlla yónni na ay yonentam nettali bi mu ngi aju ci ay yonent yu yàlla yónni Ilias ak Yunus ñaar lañu ci yonent yi yàlla yónni ci nit ñi artu nañu leen ne yàlla dina leen daan ndax seeni bàkkaar waa Israyil yu bare doon nañu jaamu ay yàlla xërëm yonent yi ne waa Israyil ñu tub walla yàlla dina leen atte yàlla bëggul ni ñi di jaamu ay xërëm wala jinne am na ci ay yonent yu fi nekkoon ci jamonoy buuri Israël ya ñu gën cee ràññee Esayi Yeremi Daniyal Sakariya Malasi Ose yàlla wax na ak waa Israël jaarale ko ci yonent ci mbirum sët boobu di musalkat bii ñëw tey daan seytaane su waa Israël déglu woon yi doon nañu xam lu bare ci mbirum musalkat boobu waaye déglu wuñu yàlla mësul fàtte li mu dig Adama Ibrahima ak Daawuda yàlla wax na li ci mbirum musalkat bi yonent yàlla Esayi nee na Esayi saar ñeent fukk aaya ñett ab yëglekat dina ko jiitu yonent yàlla Yeremi nee na Yeremi saar ñaar fukk ak ñett aaya dina bokk ci askanu Daawuda yonent yàlla Esayi nee na Esayi saar juróom ñaar aaya fukk ak ab jànq koy jur yonent yàlla mise nee na mise saar juróom aye ñaar dina judd ci dëkku betleyem yonent yàlla esaayi neena na esaayi saar fukk benn aye ñaar dina fees ak xelum aji sax ji yonent yàlla esaayi nee na Esayi saar fanweer ak juróom aaya juróom benn dina ubbi bëti gumba yi faj lafañ yi te wëral jarag yi yonent yàlla daawuda nee na saboor saar juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett aaya ñaar dina wax ci ay léeb yonent yàlla esayi nee na esayi saar juróom fukk ak aaye ñett xeetam ci boppam dina ko dëddu yonent yàlla dawda nee na saboor saar ñeent fukk benn aaye juróom-ñeent xaritam dina ko wor yonent yàlla esayi nee na esayi saar juróom fukk ak aaye juróom benn yàlla dina ko sëf bakkaaru nit ñépp yonente yàlla esayi nee na esayi saar juróom fukk ñett aaya fukk ñaar dina dee ci biir ñu bon yonente yàlla yunus nee na yunus saar benn aaya fukk ak juróom ak aaya fukk juróom benn te ñetteelu fan wa dina dekki yonent yàlla daawuda nee na saboor saar téeméer ak fukk aaya benn dina yéeg ci kaw te toog fa ndeyjooru aji sax ji waa israyil yu bare nanguwuñu woon déglu yonent yi rey nañu yonent yu bare tey wey ci seeni bakaar ni yeneen xeet yi leen waroon amoon na ay waa israyil yu daawul dem ci kër yàlla ga suleymaan tabaxoon ca yerusalem ñi ëpp ci waa Israël gëmuñu woon yàlla te séentuwuñu woon itam sët biy ñëw te yàlla dige ko sëriñ yu bare sax nangu woon nañu ci seen làmmiñ rek waaye du ci seen xol nit ñu bare doon nañu topp sëriñ yooyu sëriñ yooyu wàcculoo nañu nit ñi yoonu yàlla yàlla yónni na ay nit ñu daan waa Israël ndax seeni bakaar ak seen déggadi am réew mu ñuy wax asiri jàppoon nañu waa Israël yu bari def leen jaam gannaaw gi waa réewu Babilon jàppoon nañu waa Yerusalem ak li ko wër xarekati Babilon tojoon nañu kër yàlla ga Suleymaan tabaxoon waa Israël yu bare doonoon nañu jaam ca Babilon ñeneen ñi tasaaroo ci àddina laata loolu ñaari téeméer at ca gannaaw kenn ci yonent yi waxoon na ne benn bës dinañu dellu Israël waaye amoon na ay waa Israyil yu gëmoon yàlla ba tey ñu ngi doon séntu yàlla def li mu digee mu yónnee sët bii daan seytaane fii la nettali bi yem am na ay laaj benn lu tax yàlla yónni ay yonent ci Israyil yónni na leen ngir ñu artul waa Israël wax ne yàlla dina leen attee ndax seeni bàkkaar wax leen itam ci mbirum sët biy ñëw ñaar lan ngeen xam ci mbirum sët bi yàlla dige ne dina ko yónni ab yëglekat dina ko jiitu ab jànq koy jur ca dëkku betleyem dina fees ak xelum aji sax ji te dina wax ci ay lépp dina wëral ñu feebar gumba yi ak lafañ yi dinañu ko bañ te teg ko ay metit ab xaritam dina ko wor dina dee ak ay taskatu réew te ñetteelu fan wa dina dekki dina yéeg ci kaw te toog fa ndeyjooru aji sax ji ñett lu tax sët boobu waroon a ñëw ci àddina moo doonoon sarax bi amul sikk bi jot bàkkaari nit ñi delloo si diggante doomu aadama ak yàlla te daan seytaane ñeent ndax di ngay bàkkaar waaw amul kenn ku mat juróom ndax am nga kóllëre ak yàlla déedéet ndaxte aadama ak awa ñooy sunuy maam sunuy bàkkaar ñooñuy ñuy teqali ak yàlla amuñu kóllëre ak yàlla juróom benn ndax yàlla dina la atte waaw nun ñëpp yelloo nañu dee ndax sunuy bàkkaar juróom-ñaar lan nga mën a def ngir jot say bàkkaar dara amul leen lu nu mën a def ba jot sunuy bàkkaar li nu mën mooy gëm ne yàlla rek moo nuy musal ci sunuy bàkkaar yan melukaani yàlla ñoo feeñ ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla yónni na ay yonent yu bare ngir ñu artu waa Israyil wax leen ne yàlla dina leen daan ndax seeni bàkkaar waxleen itam ci mbirum sëtu Adama ak Ibrahima ak Daawuda bi ñëw ngir daan seytaane sët boobu dina doon sarax bi amul bàkkaar bi jot bàkkaaru nit ñi yàlla dina ko nangu di dale ci jamono aadama ba ci jamono yooyu yàlla mësul jóg ci xelal waa Israël ci mbirum sët boobu yàlla xam na lépp yàlla tëral na lépp li xew ci mbirum sët boobu yàlla dafa jub yàlla daan na wa Israël yi bàkkaar ni mu ko waxee woon jàpp nañu leen jaam yeneen buur yilif leen beneen yoon dinañu waxtaan ci ni yàlla yónniwul ay yonent diirub ñeenti téeméeri at